جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصلا أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا waaye maam Thierno ci taarixul muridiyya moom rek la Cheikhul Khadim dafa lépp kenn wuutoo ko ci dara loolu bu dee tegtale dara rek mooy képp koo xamante ni bëgg naa gëstu dara ci Cheikhul Khadim na dem seeti maam Thierno Ibrahima Fati ndax koo xamante ni bañ na ko ba waa juróom wi noppaloo di Maam Mor Anta dafa ni miraas mi jéggale naa ko ñaar la soxlu ci sama li baay muni ni ban muni tirim bi mu daan jànke ak domam ji ciorno Ibrahima Fati ñaari la ci soxla la ca des lépp jéggale naa ko maam Cerno it serigne touba seereel ko seere bo xamanteni doyna doy na moy serigne touba rabbi Tuubaa da tani ko mam ciorno Ibrahima Fati mi ndax alim la won taqiy la won sunni la won mutasawwif la won te lépp sëriñ Bamba radiyallaahu anhu moo ko defoon ci moom ku ne xam na ni séeréer bi bi nga xamante ni sëriñ Tuubaa daf bind ay séeréer yu bari ci maam Thierno waaye dañ koy tënk rek sëriñ Tuubaa dafa ni maam Thierno mii nga xamante ni musta tàqalikoog man ci bi muy ndaw ba bi muy mag maam na mi nga xamante ni musta wuuteeg man dara ci mel ni mbir waaw laa yu xaalifu nii amran khattu mam tiorno musti musta ak man mel nir mam tiorno mi Serigne Touba dal di wax ni ci lettre bi ñi mujjé moy dafa ni ginnaaw bi ne bismillahir rahmanir rahim dal di ne ko mata taaw aynayka ala hadhihi alxurufi fa tayqani bi anna katibaha radin anka ridan la suqta ba'dahu abada heure bo gisee mbind mi rek xamal ni ki ko bind bég na ci yow mbég moo xamante ni mer wala leneen du ci topp mukk mu ni ko sàkku naa sàkku naa te Seexul Xadim nag lu mu wax ñaan gu mu ñaan am nga mooy jiitu ñaan nga ndax moo ni woon ajaabani rabbu sama yàlla nangul na ko salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin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 ci turu serigne Abdou Mbakke moom serigne Cheikh khadi Mbakke khalifa borom darul mu'ti ak ñi mu andal ñep jóge ci Baye Cheikh Cheikh Ahmad Saloum sëriñ Abdou ne mi ngi lay nuyu di la ziar di la jotali itam kaddu yi mbégte ak lu jotaay bi yu tukke ci Baye Cheikh khadi serigne Cheikh khadi bis bi ni ñor nako lol ba tax na biir daarul moxti mën nañ ne fenn fu ne ca biir dëkk ba dafa jël kenn doomi sëñ Basiru Anta Ñaŋ mi ngi ci mi ngi ànd ci délégation bi ak ku jógee kër sëñ Abdou Khoudous Cheikh fadi Fall ak ñaar ci waa këram ñu ànd ci délégation bi ñëw ngir firndeelal la ñor gu ko jëf ji ñor rawatina nag muy loo xam ni dañ ci dundal alquran te xam ngeen ni borom darul mu'ti mom dafa nekkon nituk alquran cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu ma serignam moko digalon ci bami ca juk ne ko ñetta ngi ni yo xamni so ci saxé di nga am lu ñepp gis ci aduna, da nga am lu ñepp gis ci alakhirah. ba ci jëkk moy fo jóge nga ne ci tol ya fo jëm nga ne ci jakka ja lu ne ci sa loxo nga ne alquran sëñ ñu benn koo ñett yi boo ci saxee di nga gis di nga am lu ñëpp gis ci àdduna di nga am lu ñëpp gis ci àllaaxira xam nga ne alquran sëriñ Tuuba dadaa wax ne moom séq ko kenn dadaa wax ne kitaabu diini kitaabul loolu la sëriñ Tuuba daa wax dadaa wax ne kitaabu ka diini wa huwa xilli wa munisi dadaa wax itam yaa kitaabal karimi anta xalili wa xabibi wa qablu kunta tabibi dadaa wax itam ne كنز الكتاب والحديث والأدب لا جمع فدة ولا جمع ذهب دا واخ صاح ني موم دون لي بغ نانكو جاري تي ليغيال القران اك حديث يونس عليه الصلاه والسلام بخدمه الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث كون بو تخوالي بس بو ملني داجالي تي جولي نيب دي تي ترال نيغا خامني نيو جانغ القران te yonente bi waxon ne ñom ñoy ahlullah wa xaasatuhu kon yaangi def def ju reey yo xamni bay Cheikh khadim mi ngi ci bekk di la ci ñaanal yàlla defal la ci tawfiq defal la ci ndam defal la ci ngërëmul yàlla te nu andu ko yow ak mbollem ko nek ci jotaay bi ak julit ñep ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba bi jahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Ahmed salum jeng président national bu union de la jeunesse musulmane sénégalaise nit jàngagu fi alquran te ñaanalo ko ci khatmul quran ndax boné allahumma unsur man nasara diin yàlla dina ko jox pourcentage am ngir taxawayam ak rafetalam ak jëflanteem bu mu def ci nit ñi def ko ci diine ji waye def ko ci humanité bi waye la dalon sayidina Ali Abi Talib ba mu jàkkaarloog ndawi jamono dem rek ma ngi koy nettali al oustaz Idrissa Gueye ملين زاحم فميدان الحياة زحام اعمل تنل إن القعود حرام سابقون تسنموا هم العلا والغائبون رقاموا ونلين ترين بي دي بار تيغارو يتي اك بغلو باخ دي تيري تيغارو تيكي دارا اك غارو ديفلوبمون ولا غارو ايمرجانس موني ترين بوبو جورومي غار لي تخاو waaye a Seydi Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasru Diin bu ma nee allahuma unsur man nasara diin mu faf tudd Nasru Diin moom train boobu jënd na ci billet jëndaaleel billet képp koo xam ni bokk nga ci union bi waaye bokk nga ci réew mi wala bokk nga ci ak tarixa boo mën a doon ak organisme boo mën a bokk ci Sénégal Cheikh Ahmed Saloum jënd na la billet. dama ne fukki doomi aadama yi mel ni Nasru Dieng bu ñu ko amee ci Sénégal Sénégal baax donc di ñaan yàlla lii nga xam ne moom nga sumb yàlla la yàlla jàppale. ki nga xamne mom moom nga yaakaar àdduna ak alaxira Serigne Touba yal na la jàppale njaboot fi ñewi di ñaan yàlla sunu doom ya sunu sët tay ñëw tay di jàng alquran yalla ko yàlla duggal seen i fay leen ko yéen ustaas yi xala yéen encadrer wax deug yàlla nasiru jeng di الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع طريقته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يشرفني في هذا اليوم ان اشارككم هذا الاحتفال البهيج الذي نبع من قلوب ارتضته عاشت في كنف الاسلام عاشت في كنم الاسلام فاستلهمت روحه من التنزيل الا وهو القران الكريم هذا الكتاب الذي نزل من فوق سبع سماوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا وطريقا للخلاص خلاص البشريه من ظل العبوديه والاستعباد والانحراف عن جاده الصواب وهذا ما تحقق عبر الزمن منذ الف واربعمائه سنه جاء الاسلام وقد نزل على ارض مكه المكرمه مبوكو تشيس مبوكو توبا مبوك يب Manglen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di len siyaare di len sargal di len jaajëfal monsieur le gouverneur maa lay nuyu waaye dama bëgg ngeen mayma ma nuyu fa nuyu gën a màggee sama càmmin Ahmed Salum Jeng. nit ku bax nit ko xamni xamna ni suñu borom mo lol sama xamel ak mom ak sama andak ak mom ndax su organiser li tay ñu ne ci fiek ay fan nous célébrer laylatul qadr dama ko bëgg féliciter te bëgg leen wax ni julit akhan la jullit akhan la wax ji duma ko yàggal mais dama ko président appel islamique mondial man ma présidente Réseau mondial des femmes musulmanes section Afrique ñu toogandoo nii defe nous ne am na lu suñu borom namm kon Ahmed Saloum Dieng en tant que présidente mouvement mondial des femmes musulmanes talal na la sama loxo. nañ ko encourager pour mu gëna bok ci ñi nga xam te ne ñoo gën

di la jottali rek euh, nuyu gouverneur القادرية واللاينية كما نشكر أئمة التيس ودواحيها على حسن تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه التزاهر الإسلامية السنوية وأخص بشكر الأخوة أعداء لجنة تحكيم المسابقة الذين أشرفوا يوم أمس على تحكيم الطلبة المشاركين في هذه الدورة والذين جاءوا من مختلف أقاليم السنغال ومن بعض الدول المجاورة للسنغال كما أشكر الأخوة الذين جاءوا ممثلين لهيئات إسلامية خيرية عالمية ونخص منها الأخوة من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية هذه الجمعية الفريدة من نوعها التي كانت لها الفضل في تأسيس وإقامة ومبادرة بسم الله كنت bi ni ñu ko waxee موكل بقرة la benn bi mooy ñu mokkal suratu yaasin ba safula suratu mariama ba naasi ñetteelu xaaj bi mooy ñu mokkal suratu yaasin ba naasi ñeenteelu xaaj bi mooy ñi mën a ñi nga xam ne xëy na mokkaluñu waaye am nañ culture générale sur le Coran fas yéene nañ ne ñeenti section yooyu section bu ci nekk ñu xool ñi ci gën a ràññeeku ñu jox leen seen i neexal incha allah comme ni nga ko waxee keroog aussi ci avant première bi ñu doon def concours bi concours sous régional la mais bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ne jaar nañ ci concours bi participé ci ay concours international suñu mbokk mi doon wax léegi di Alaaji Idrissa Gaye doomam Habibatu Gaye jóge na fi participé ci benn concours international ci Libye te ci concours bi Medoune Cissé mi doon jàng alxuraan sànq moom it jaar nañ ci concours bi nëga ni daaw ma nga woon ci Iran di fa participé ci benn concours international am na ñu fi jóge dem Kuwait am na ñu fi jóge dem na ñu fi jóge dem Égypte naka noonu fii di dem di participer ci ay concours international kon concours bi euh, buntu la pour mën a ci ay rencontre internationale ba ca des it mooy point de rencontre entre sëriñu daara yi ndax kenn umpale woon ni tool bi dafa yaatu kenn ku nekk nekk sa ruq di liggéey waaye bu ñu tànnee benn xew-xew boo xam ne xew-xew euh, bu am at bu jot la ñooñ daara ñëpp ci dajee buñ dajee waxtaan xamante bëggante di échanger seen biir loolu dafay gën a renforcer renforcer dafay gën a renforcer unité bi ak jàppalante bi ci diggante daara alxuraan yi ba ca des it dafay gën a encourager xale yi donte mokkal nañu alxuraan karim ñu mën a seddal njàngi bi ndax bëri nañu mokkal alxuraan waaye njàng ma dana dese sell danto alxuraan lépp a sell lépp ma sell njàngi mu sell bi mooy bi donc donc loolu concours bi dafa bokk ci li nga xam dafay gën a motiver xale yi ci loolu concours bi comme ni nga xamee at mu jot dañ koy wutal turandoo at mu jot dañ koy wutal parrain parrain bi sëñ Mbaye Faye wax na ko sànq dañuy tànn kenn ci jàmbaari lislaam yi nga xam ni seen liggéey dafa ràññiku ci réew mi ci yar ci jàngale ci xamle ci sàmm sunna Seydina Muhammad waaye rawatina ci sonn ci alxuraan karim ñu def ko parrain ngir feeñal liggéeyam ngir ndaw génération yi di ñëw mën cee réew ren nag ñu tànnoon jàmbaaru lislaam yoo xam ni ñëpp xam nañ taxawaayam ci yoonu murit xam taxawaayam ci lislaam bi xam bëggam ci bëggam ci alxuraan xam fidéliteem ci mbokk bi nga xamee ni sang bu tedd ba Cheikh Ahmad Bamba mu ngi dem ci mission bu metti boobu ñu tudde woon ko exil te moom mu xamoon ni ndam la fay jëlee te bu nire woon exil ci zaayir mu jël lépp dénk ko dénk ko njaboot gi dénk ko taalibe yi dénk ko daara ji dénk ko yoon wi mu wane ci mag bu mat sëkk ba lislaam toll fi mu toll tey yoonu buri tool fi tool tey sëñ bi dem ñëw taalibe yi yokk lépp yokk kon bokk bu ñu ko alxuraan jaadu na moo tax bi ñu ko ñu dem ba ci xalifaam bu tedd ba yëgal ko ko ànd ak njabootam sëñ Abdou Mbàkke nga xam ne suñu sëriñ la suñu xarit la suñu soppe la di doom ci xalifa bi biñ demee mu dalal ñu dalal ni muy ni muy dalal taalibe bi yëpp rek ci oyofam boobu ak mbaaxam gi ak ubbi gi xamuñu ni jox ngeen alquran ku ko bëgg jox ngeen alquran ku ko fonk jox ngeen alquran ku daan sonn alquran karim yabal na fi délégation bu mag ñu ràññee ci suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ sëriñ abdou mbacké ràññee ci sëñ mam cerno mbacké njabotam ràññee ci sëñ morsi anta ñang ràññee ci suñu doomu sëriñ sëñ ahmadou mbacké ibnu cheikh moutada mbacké bi nga xamni mom moom moo ñu yoroon fii bi ñu nekké ñun ay élève di jang ci école cheikh mohammed moutada mom mo doon wax léegi turu délégation bi invité eh, d'honneur jotaay bi doon suñu xarit suñu soppee Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñëpp xam sama diggante moom muy jàmbaaru lislaam di kuy sonn ci ndaw ñi di sonn ci yoonu Serigne Touba bi di sonn ci askan bi di sonn ci réew mi moom it di ku bëgg lu baax démb la ma woo xamal ma ni ginnaaw sëñ Cheikh am dafay ñëw mel na ni sama jëmm fa teew ndax xam nga ni ma demee moom waaye nag teewul dinaa fa yebal sama taaw sëriñ Ousmane Mbacké mu ñëw wétali la kon mel na ni jëmm ma ngi fi kon ànd ak suñu rakk nag suñu xarit suñu Sadikh Diop fekk fii it seen i jëwriñ sëñ Moustapha Fall ak moom mi nga xam ne ñëpp xam nañ sama diggante ak moom bis bi comme ni ma koy waxee at mu jot jamiyatu daawal islamiyyal alami association mondiale bu appel islamique ñooñu ci daan dimbali waaye yoonu yàlla du jeex te yàlla yi du jeex moo tax bi ñu demee ba ñu am gàllankoor ñoom ba taxawatuñu mu am jàmbaar yoo xam ne dañoo ne ci réew mi at mu jot ñu taxawal bis bi ñu ñëw taxaw ci jàpp ci jàmbaar yooyu ñu ràññee ci Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khader nga xam ne at mu jot suñu waaja bis bi soo desee ñaari weer mu yëkkati am solo jox ma ko ni ma na ko waajale bis bi ba pare woo ay xaritu boppam ñu jàpp ci bokk na ci xaritu boppam yooyu kii ak si léegi di sëriñ buub bu CCBM comme ni ko sa Ablaye may benn waxee doomu daara la doomu alxuraan la xamul dara du alxuraan di gërëm son excellence le premier ministre du Sénégal monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne moom it dugal na loxoom ci bis bu baax a baax ginnaaw bi mu amee ndigal ci kilifaam le président de république Sénégal monsieur Macky Sall moom it ñu ngi jaar ci monsieur le premier ministre di ko jaar ci gouverneur de la région di ko jotal suñu nuyoo ak suñu sant ak suñu ñaan ci moom gis nañu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci njàngum arab bi ñu toogee ci bopp réew mi léegi ko ci imaam yi am ko ci borom xam yi rawatina bac arab bi nga xam ni ñuy jàng arab ci réew mi daanañ jéem mën a am possibilité dugg ci université Sénégal yi te suñu ko am donc ci magistrat turam ci la yàlla dogale tey ñu ko am bac arab département ENAM bi nga xam ne aussi dañ ko tëjoon ci kanamu arabisants yi bu nit faa dugg ubbiwaat na ko ngir Sénégal euh, arabisants yi mën faa jaar nekk ay ambassadeur ci bitim réew donc ñu ngi koy félicité ci liggéey yooyu ak yeneen jéego yi nga xam ne mi ngi koy def ngir taxawu daara yi di gërëm suñu mbokk mi dina ministre Alioune Sarr ministre du commerce bu Sénégal daaw jéeg dama Idrissa sa peut-être dama Idrissa Gueye présenté muy doomu Thiès bi ku baax at mu jot mu invité lu mat juróom fukki nit këram Idrissa nee na bi mu ko dalee dafa léegi ëpp na fukki at ak juróom daaw ak daaw jéeg ma ciy nekk ak moom ñu dem ndogoo këram jàng fay kaamil jàng fay xasaayit waxtaane fa mag ñi waxtaane fa alxuraan mu taral ña fa teew ñëpp démb la woon ndogu loolu mënu ma ci woon dem mais sëñ Sidi Kunta mu ne moo fa teew suñu tur ak tur mboole seen kilifa diini yi Thiès ànd fa ak Idrissa Gaye mu ne ma xat na loolu mais lu mu xat-xat ci bis moom it dugal na loxoom bu baax a baax ci bis bi monsieur le ministre Alioune Sarr di ko gërëm bala maa romb ma jaar ci yow aussi gërëm le gouverneur de la région monsieur Marsa Sène teew na fi teewal sama xarit monsieur Amadou Sy gouverneur moom it ñëpp xam suñu diggante ñun ak moom avant mu fi nekk gouverneur nekk ko def gouverneur dem ñëwaat nekk gouverneur moom it taxawaayam rafet na ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. di Ahmed Saloum Dieng di ko nuyu di ko sargal. di ko wax ne suñu teewaay fii comme ni mu ko waxee teewaayu rakk ju ñëw ci magam la ndax moom comme ni mu ko waxee yàlla bi mu ñu boolee yàgg na boobaak léegi aussi saa su ne su xewlee bés yu mel nii ñu ñëw teew loolu moo tax li mu wax léegi mu wax ko parce que ànd nañ dem fu ne parce man ku waxoon ne dinaa mës toog bay fanaan ci xayma nekk ci àll boo xëyee ñu jox la ñànkatang ak lu kenn xamul jàpp naa ne loolu man ku ma ko mosoon wax dama ko gëm mais yàlla def na ànd nañu Agadez ko xam na Agadez désert la ànd nañ Tombouctou donc ci ay te dañ ne nit bala nga koo xam nga ànd ak moom tukki donc ànd nañ def yooyu yépp loolu ñu ko ci sant di ko gërëm parce que expérience la ci li nga xamante ni doxal nañ ko caan di nuyu ñi fi nekk ñëpp suñu xarit sëriñ bismillahi rahmani rahim taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا إذا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربح أن يسمعوا Aula.